waaw xam nga lew nañu seen dëkk barke la fu ñu fi ci nit rek barke maam Alaaji Abdoulaye Niass barke maam Khalifa day ñëw ci aw euh, monsieur le maam Alaaji Abdoulaye Niass fi la lu mat juróom-benn doomam juróom-ñaar doom tëdd ak ay sëtam lu toll ci ñett ba ñeenti tëdd fa tabaarakallaahu bi nga xam ne euh, quatrième mu Khalifa maam Khalifa Niass El Hadj Ibrahim ñu génne àddina ñu def ko fii ci kanam moom nga gis mausolée be Euh, foofu nag incha allah fa lañ war a def Sidi Lamine mu nekk ci gannaawam ndax it euh, loolu mooy li nga xam ne moo logique fii lañ koy def incha allah defar nañ barab bi ba pare euh, pour mu mën a ñëw rek ñu jébal ko borom gannaaw bañ ko ñaanalee yàlla.